foofee ci Touba mbaaki dañu fay fekki euh, sunu correspondant Pape Balla euh, Guèye Pape Balla Guèye nag moo toogal euh, rajo Futur Média ak télé Futur Média foofee ci Touba ni ma ko waxee sànq tey nag xam ngeen ne lu ëpp ci émission bi dañ ko jagleel Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ak limp bàyyi muy son leg tey nag foofee ci Touba Pape la nga waxtaanee ñu foo xam ne itam am na taarix ginnaaw bi ma la nuyoo ma bàyyi la ak téléspectateurs yi. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar de quoi est la noo tey ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy janatu fi nga xam ne fi la ñu taxawal hôpital euh, hôpital euh, national euh, centre hospitalier national di Matlaboul Fawzeyni nga xamante ne nag ñu ngi ko daal di duppee Matlaboul Fawzeyni turbo boobee nag fan la jógee ak kan moo sanc Matlaboul Fawzeyni loolee dinañ ci dellusiwaat ci nu mu gën a leere ak askan wi dem xool Matlaboul Fawzeyni tur bi fan la jóge hôpital bi de liñ ci xam euh, ci biñ ko sancee xam naa ci jamono Sëñ Saaliw benn daayira bu ñu doon wax daayira Matlaboul ni nekkoon ay murid yoo xam ne ñu ngi doon yëngatoo bitim réew ñoom ñoo amoon xalaat taxawal ci dëkk bi benn hôpital boo xam ne danañ mën a dimbali dëkk bi ba ndax jamono yooyu fekkoon na dëkk bi su ma juumu benn hôpital moo fi amoon. Matlaboul Fawzayni xam nga lu ni tekki ci baatu wala. waaw Matlaboul Fawzayni Euh, euh, xasida la xam ne Serigne Touba moo ko bind. waaw di ci wax ci ci biir dëkk bi xam naa njàng bi soriwul waaye noonu lañ ko mën a tënkee daal. incha euh, ñu ngi fii ci Matlaboul Fawzeyni hôpital bi xam nga turu Matlaboul Fawzeyni fu mu jógee. Matlaboul gu ñuy wax Matlaboul suñ tubaab moo ko taalif. Mm-hmm. waaw loolu nga ci xam. waaw ah, laaj laaj jàmm dañ doon laaj rek hôpital ndax xam ngeen kañ lañ ko fi ñan ñoo ko fi def. Hmm. loolu de wax dëgg yaa mun de see leer. nekk ah. hmm. xamu leen ci dara. xamuñu si dara Matlabul Fawzeyni tam xamu leen fi mu jóge. non mbokk yi kon uh, gannaaw ba nga xamante ne askan wi àddu nañ ci turuk uh, Matlabul Fawzeyni fan la jógee ñan ñoo ko daal di taxawal itam dañuy daal di dem uh, laaj Baye daam Ndiaye mi nga xamante ne moom ku xam taarixuk lii di hôpital Matlabul ni la mu gën ñu leeral fan la cosaanoo tur wi it fan la jógee ak kan moo ko joxe ci kanam tuuti lay doon ñu dem ak Baye Dame Ndiaye. salaamaaleykum Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye ñu naka waa kër gi baa ñëpp bañ ci jàmm rek alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf waaw ñu ngi ñëwoon rek euh, doon laaj euh, Matlabul Fawzeyni tur bi fu mu cosaanoo ñan ñoo ko daal di defar euh, moom day fii hôpitalu Matlabul Fawzeyni man maay jëwrin ji nga xam ne man la sama borom bi dimbale sëñ Touba dimbale ma ma sos daayira ba ci Espagne Euh, booba itam danoo gis ne yàlla may nanu ñun murid yi nekk foofu man suma leen woo ñu wuy si ma su ma ñu jox ma su may wax ñu déglu ma ma ne kon nag ñun ñii di ay émigré war nañu mën a am lu liggéey bu nu def fii ci Sénégal rawatina ci Touba ci 1991 ndax booba gis nañu ne murid yi nga xam ne ñoo nekk ci biir euh, euh, Touba gi soo demee Ndar ñoom nga fay fekk soo demee Louga ñoom nga fay fekk soo demee hôpital Saint Jean de Dieu ca Thiès ñoom nga fay fekk soo demee Dakar ñoom nga fay fekk te bu nu àndandoo roy ci sëriñ Mouhamadul Moustapha ak rakam ya nañu defoon ba liggéey jumaa ji te benn dërëm nekku ci daana ko mën a def waaye ndimbalal yàlla ma nga tukkee ca ndigalal sëriñ Saliou loole jox nu ndigal ne lu dem leen dem leen ngeen liggéey loolu ànd naa ceeg yéen li tax site bi nekk jànnatu Mahwa itam mu ngi jóge ci sëriñ Saliou Mbacke dafa wax ne gannaaw am na. hôpital bu ne penku na am bu ne soowuñu séq dëkk bi booba fii nekkoon na sax lu ñu réservé woon mais cent mètres sur quatre-vingts la woon muy fii nu taxaw ni tey gannaaw gi lan koy yokk jënd ay barab dolliwaat ci ba mu toll fii mu toll tey daayira des émigrés sénégalais au service de Cheikh Ahmadou Bamba loolu mooy casaanu daayira bi waaye ba nu ñëwee tàmbali di liggéeyal Serigne Touba Serigne Serigne Touba Serigne Saliou moonu ngéntewaat tudde nu mat la bul faw daal di wax ne daayira bi ak hôpital bi yëpp Matlaboul Fawzeyni la ñu tudd booba noo ngi ci liggéey bi yeggalagul waaye nag liggéey nañ ko ci diirub juróom-ñetti at ndax le 2 mars 1994 la ñu posé pierre bi fii fii tey jii ma taxaw le 2 mars 2002 lañ ko lañ ko yeggale jébbal ko ceeb yi mu juróom-ñetti at consécutif yi mu def ci géej gi nu defal ko ko fii liggéeyal hôpital bi ba mu yegg nu jébbal ko ko teg ko ci ay loxoom. maanaam nag ñaan yàlla mu nangul na ko loolu mooy li nga xade moom moo am ci fii ci hôpital bi. kon mbokk yi lii lañ leen indiloon tey dëkku Haïtil la noo dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xamante ne Serigne Dame Ndiaye yëkkati na ko. kon lii lañ leen di euh, indiloon ci dëkku Haïtil la noo leen jox dig daje beneen yoon ak beneen euh, quartier incha allah jërë ngeen jëf. jërëjëf euh, Pape Balla Gueye euh, foofu ci Touba Mbacke yaa ngi dem gox bu ñu naan jannatu Mahwa euh, dem ci hôpital boobu nag muy hôpital Matlaboul Fawzeyni Malick Thiandoum muy hôpital bu polarisé quand ay zones yu bëri parce que boo demee diggante gox yu fasantikoo yi nga xam ne ñoom ñoo seq Touba ñu bëri seeni malade dañ daan jóge ba Linguère ba yeneen gox di ko indi foofu ci hôpital Matlaboul Fawzeyni te itam ay taalibe yu dëggal seen bopp ñoo sos seen hôpital daayira mu ko waxee Baye Dame Ndiaye mm. euh, sëñ Saliou Mbacké euh, sànq Marcel mu ngi naan euh, mu ngi ko joxe information sëñ Saliou c'est le dernier fils de Cheikh Amadou Bamba sur terre. voilà donc euh, Serigne Saliou moom moo leen euh, euh, tuddee ngéntewaat leen mënees na ko waxee nu tuddee leen Matlabul Fawzeyni. moo leen ngéntewaat moo joxe yi tamit ndigal ngir que hôpital bi ñu ñu ñu yóbbu ko foofu ca Jannatul Mahwa. ndaxte i tamit sëñ bi dafa am maanaam visionnaire la. Mhm. daf ni ginnaaw am na l'hôpital bu féetee. penku nañu wut beneen bu féete sow nga xam ne dañuy ndar képp dëkk bi. Mhm. ba fu nit mën a jógee hôpital dina la jege pour nga mën a faju mhm. donc loolu macha allah mu nekk lu am solo. Mhm. mais tur wi tamit dafa nekk tur bu nga xam ne dafa symbolique. ndax Matlabul Fawzeyni xasida la gu nga xam ne. Serigne Touba mi ngi ko bind en 1888. Euh, diggante ak euh, mu dëxëñ ci lu bari. jëmale ko yi tamit. ci dëkk bu tedd boobu di Touba. Mm-hmm. te lépp lu nga xam ne sëñ Touba bind na ko ci Matlabul Fawzayni mm-hmm. di mbëggeel maanaam lu mu bëggoon ca Touba. mbëbëtam mbëbëtam ca Touba. mi ngi ci biir Matlabul Fawzayni te boo jàngee Matlabul Fawzayni di nga gis ni lépp lu sëñ Touba mëbatoon bëggoon ko ci Touba fekk si na ko euh, ci ci ci ci barab bu tedd boobu mhm. mu nekk i tamit xasida nga xam ne mhm. euh, la mu cay la mu cay gën a gën a firndeel mooy mhm. am tedd nga ak fële maanaam jàmmi ja jàmmi jàmmi àdduna ak jàmmi alaaxira mu nekk lu nga xam ne ñun ñëpp moom la ñuy sàkku maanaam am jàmm sëriñ Touba wax dëgg yàlla da ko jaayante ak yàlla suñ borom. ngir jaam ni mën ci mën ci bénéficier wu. te ku dem Touba xam ne. Mhm. liggéey ba fa nekk liggéey bu jëm ca yàlla suñ borom la. Mhm. te képp ku topp ci ndigali Serigne Touba bàyyi ay tereem. Mhm. dara du la euh, teree dem Touba. Touba ga ca ajana nag moo tax may wax. très bien <laughs> macha ah, allah waaw <laughs> wallaahi wallaahi wallaahi Malick am na am na solo Fatou Kiné Deme euh, def nga def nga fa ay euh, reportage ci rawatina ci jamono mbas ak màggalu Touba gis nga avancé yi nga xam ne def nañ ko même si quand même rëq-rëq mënul ñàkk parce que léeg-léeg ñu gis euh, yenn ci ay liggéeykat génn am lu nekk seen xol lu ñu bëggoon maanaam lu jëm ci wàllum jàppale gi matériel bi ak yeneen ak yeneen même patients yi sax léeg-léeg itam ñuy coow lu jëm ci wàllu accueil dans toutes les grandes villes du euh, du, nga. Mm. yu noonu day day faral di am foofu dem nga fa def fa gëstu. def naa fa gëstu te li nga wax sa faate dafa di leer nañ mm-hmm. ndax xam nga euh, tey boo xoolee Matlabul Fawzayni mm-hmm. donc mën nañ jàpp ni hôpital la boo xamante ne nii daanaka. Mm-hmm. mën naa dem sa xëy na ba dañu naan est-ce que àttan na askan wi. ndax xam nga Touba boo xoolee ci année yu mujj yi. Euh, population bi macha allah. ni mu yokkoo ak la deuxième ville du Sénégal. mi ngi noonu sur bi noonu mu yokkoo noonu itamit la demande bi du forte waaye boo xoolee itam ak lu mu metti metti quand même am nañu ay réalisation yoo xamante ne def nañu ko ndax tey boo xoolee ay spécialités yu bari amu fa woon te tey mm-hmm. macha allah mm-hmm. spécialités yi ñu nga fay ñëw donc mu nekk loo xamante ne daal lu am solo la waaye tamit lu mat a bàyyi xel la pour mm-hmm. que vraiment ñu gën a yaatal ndax Touba toll na foo xamante ni tey dëkk la buy màgg la sancaane yow xam nga ci dara ndax it yàgg nga cee liggéey euh, sancaan yooyu tax na ba tey jile tey bu dee ministère bi ñu gàlluwàllu wér-gu-yaram bi ngi def ay jéego a yokkaat euh, euh, jéego yi. Mm-hmm. te yaakaar naa ni sax nag dina gën a am solo ndax gis nañu hôpital euh, Ahmadul Xadim bi. nga mm-hmm. xamante ne vraiment norme ya ma nga fa. Mm-hmm. waaye comme ni ñu ko waxee rek xëy na liggéey bi tàmbaleegul te loolu it du ñàkk ñu def ci gëstu soxna Fati. du ñàkk nga dem seeti docteur Souran ba ko jiitee parce que moom mooy suñu bàjjenu gox donc elle maîtrise parfaitement sujet yi ñuy waxtaan lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram. docteur Issa Mbaye Samb Issa Mbaye Samb yal na ko yàlla yërëm jamono yi mu nekkee ministre de la santé moom moo inauguré woon hôpital boobu moo ko inauguré woon tey euh, ni ma ko waxee euh, dëkk yu bari gox yu fasantikoo yu bootu ci ginnaaw Touba ba ci yeneen région dañuy ñëw foofu di faju euh, li yewoo rek limu doomu aadama ci Touba foog naa ne hôpital bi attanu ko euh, misaal mi yaa ngi koy wax euh, euh, c'est la deuxième ville du Sénégal sur le plan démographique moom mooy Touba après Dakar mu ëpp lu yeewoo ci doomu aadama Marcel lan nga mën a sànni ci Pape Bala lu ñu seetaan sànq yow dafa mel ni demoo man la bu faw seen yow ndaamaatu nga demoon. ndaamaatu laa demoon <laughs> a ngi nii. ci la comme ville. enceinte ci foofu la nekk ba léegi tamit euh, ma demoon fa defi benn euh, reportage ci unité néonatologie bu fa nekk ñu def fa ay euh, ay moyens yu am solo ci pôle mère enfant bi nga xamante ne sax c'était en il un an de cela c'était encore en en chantier mm-hmm. mais prise en charge bu ama am solo moo fa moo fa am et puis bon pour revenir à Euh, Mawlatul Fay euh, Fawzeyni li nga xamante ne moom mooy euh, hôpital boobu beneen hôpital centre centre hospitalier régional la ca ca biir région bu Diourbel au fond muy firndeel rek le le travail accompli par le Cheikh nga mhm. xamante ne dafa wekkoon ñaari mbir mu di euh, cofeel ci boromam ak ci moromam. Mhm. donc euh, voilà teg na ko ci mbiru mbiru yàlla ba pare wane waale ne ne. Mhm. Euh, genre centre hospitalier yu mel nii day am solo ci ci doomu aadama yi. donc mhm. comme ni ko Fatou ki waxee. ñu ñu jéem a xool ni ñuy def rek bu gën yokk li nga xamante ne moom mooy genre infrastructure yu mel nii. ci benn ville boo xamante ne quand comme ni ngeen ko waxee tamit c'est la deuxième ville sur le plan démographique au Sénégal donc a gestu yu mel nii gën ko yokk yokk gën a yokk ay infrastructures yu mel nii et puis gën a liggéey tamit l' en tant que telle. Hmm. merci beaucoup Marcel Farba Maroun Fatou Kiné waa Aca. voilà ci ci même boobu sax damay euh, ci yokk lu am solo. Euh, parce que itam il faut ñoo xam ni deeteelu jigéen ñi Fati. Mhm. naam ñi ngi ci defi jéego waaye Touba ba nëgë ni. Mhm. Euh, problème ba dafa nekk. ni ñu ko waxee buy jaari hôpital yooyu Matlaboul Fawzayni daa baatu. Mhm. ndax nee nañ boo jëlee ñetti weer yu dekk. daanaka lu toll ci ñaar fukk ak ñett ci soxna dina ñàkk seen bakkan. ci wàllu évacuation lay doon ndax tey poste de santé yu gën a sori. du ñu am jumtukaay dañuy obligé di leen évacuer dans des conditions très difficile mhm. ba tax na ndeeteelu jigéen ñooñu itamit dafa am solo ba nëgëni Touba naam ñu ngi defi jéego mhm. mais nañu gën a dooleel côté boobu ah, ñu gën ci bàyyi xel am na solo torop Fatou Kiné euh, ñu jaajëfal bu baax une page de pub et ñu dalal suñu invité